ñu ngi amaan mbégte lool ci ñëwaat ànd ak ci suñu jotaayu koor bi euh, wax rek lenn lu xam ni yitteel na ab jullit ci koor gi tey nag dañuy wax ci loo xam ne nii ci mbiru koor tey ñu ngi ñëw pour waxtaanee lenn rek loo xam ne nii ci loo xam ni koor gi mën na koo jur ndax koor dafa am ay pàcc yu bari dafa am aspect yu baree bari bu weesoo jaamu yàlla gi ak taxawaay bi ci wàllu ruux ci wàllu jege sa boroom ci ay jaamu yàlla ci ay raka ci jàng alxuraan waaye koor ci njariñam mooy euh, fexe ba dëggal ak solidarité ak jàppalante ak dimbalante wane bennoo ak jullit ñi loolu ci njariñ yi nga xam ne koor am na ko te bokk ci jeexintal yi nga xam ne dana ko def ci société bi est-ce que koor gi loolu taxawaay boobu est-ce que mu ngi am ba tey est-ce que ñun ñu ngi dund taxawaay boobu nga xam ne jullit ñi ñu ngi koy taxaw ci seen yeneen mbokki jullit ñi nga xam ne aajo woon nañ ko ndax kat ak jaam yàlla gu màgg la nga xam ne ni daanaka rek mën nga wax ne gënta féete suuf jaamu yàlla gee nga xam ne mooy ay rakka wala jàng alxuraan mooy lan mooy sa jul sa mbokk jullit wala sa dëkkandoog jullit bi nga xam ne wóor na ne am na yitte ci wala am na ak soxla wala am na aajo ci lu mu jëfandikoo moom ak njabootam wala nga gis jullit boo xam ne nii day woor ba ngoon amul lu mu dogoo kon lii nga xam ne mooy attakaafulu wa taawun wa tadaamun loolu nan lañ koy dëggalee ci weeru koor yonent bi de sallallahu alayhi wa wax nañ ko fi ay yoon ci jataay yu weesu ne moo gënoon a tabe kuy tabe daa mel na ngelaw ngelaw daawul tey dara waaye nag bu weeru koor masaana ñëw moom day nekk leneen ci joxe googu ba sayyidatna Aïcha nettali na ni dafa saraxe am xar ne leen wax leen ñoom waa waa këram ne leen ngeen joxe ko sayyidatna Aïcha nee na ñu joxe ko ba mu des ab cër ba yonent bu dellusee laaj leen ndax joxe ngeen ko ñu ne ko ah, waaw joxe nañ joxe nañ ko lépp de ba mu des ba mu des euh, cër nangam mu ne nag lépp des na ba mu des loolu kon lañ joxe lépp am nañ ko des na ci ñoom ci ab yiw ci ak ngëneel waaye lañ fi def lañ fi desal moom loolu ñoom desaluñ ko moomuñ ko muy dëppook li nga xam ne borom bi subxanahu wa taala da koy eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na ko ni sa alal li nga ci moom mooy li nga lekk mu rees ay li nga sol mu ràpp ak li nga xam ne jiital nga ko ci ay sarax ci jëf yu baax loolu doom mooy li nga xam ne mooy des. te moo lay mën a jariñ ëllëg kon nag mbokki jullit yi war nañoo amaat beneen taxawaay ci taxawu suñu mbokk jullit yi ci dimbalante tey jaaduwul ab jullit woor ba ngoon amul lu mu dogee loolu jaaduwul loolu warul mën a nekk li waroon nekk kay mooy dañuy wër ngoon gi bu gut ak jotee ñiy wër di xool kuñ jox ndogu koo jox mu ne la man kay baax na loolu moo waroon nekk kon nit ñi góor góor nañ génnee seen alal li leen yàlla jox te xam na alal ji yàlla leen ko jox ñu jàppale gi seen mbokk julit ñu dem ci daara yi taxawu donga daara yi taxawu jirim yi taxawu way néew doole ñi ñi nga xam ne ci kër yi ku ne fa nga dëkk xam nga ne am na koo dëkkal koo xam ne nii soxla woon na ndimbal aajo woon na ndimbal kon nañ leen fekk foofu taxawu leen bu ñu xaar ñu ñëw di leen laaj wal di leen tàllal loxo loolu jaaduwul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee naara walaw bi shiqqi tamratin na ngeen wattandi safara doonte ab xaritu tàndarma xaritu tàndarma ni mu néewee waaye xoolal yool bi ni mu réyee ab tàndarma nga nga am ko yow dong nga am ko moom dong waaye nga sa moroom jullit nga xaaj ko xaaj ko ci digg bi jël genn wàll gi jox genn wàll gi mu ne loolu rek mën naa musal nit ki safara dugal tàbbal ko na waaye daana daana soññe tamit naan leen saraxe leen donte donte ab xaritu tàndarma nga xam ne am sarax la waxuma laa nag ko xam ne nii yàlla jox na la loo joxe te alal kat ah li nga li nga li nga li nga li nga ci li nga ci def lu baax moom nga ci moom de li nga ci joxe dimbale ci ay nit euh, taxawu leen ci anam gu nekk te suñu borom gërëm ko loolo mooy li nga xam ne moom nga moom ci alal ji waaye la nga denc ci ay compte la nga euh, denc feneen rëng ko feneen tabaxee ko ay kër loolo loolu alalu keneen la boo fi jugee na nga fi jugee balaa yàgg loolu toxu ci yeneen yeneen loxo ñun ñoo ko moom kon nañu farlu gën a amaat taxawaay ginnaaw taxawaayu jàng alxuraan taxawaayu julli yi ak ràkk yi ak lay guddi yi waaye nañu taxawaat ci wàll gi nga xam ne mooy dimbalante fexe ba ñëpp am mbégte julli ñëpp am kontaante ba mën dund koor gi niñ ko niñ ko bëgg a dundee ca anam ga gën gu ànd ak jaamu yàlla gu yàlla nangu gis nañ wa yut'imuuna taama damal ci alquran ci suratul insaan wa yut'imuuna taama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukra inna naxaafu min rabbina na yawman abusan qamtarira xoolal kii nga xam ne nee nañ mi ngi wàcc ci Seydina Aliin Seydina Ali ibn Abi Talib def moom ak njabootam dañoo wor ba ngoon amuñ lu dul lenn lu ñu war a am miskin ñëw fa ñu jox ko daal di jàpp ci yàlla kon ne ba ca ëllëg sa ñu kon seen koor ba waxtu ndog jot lañ amoon neen jirim jaar fa ñu ne ko am ñu continuer ñu seen koor ba ci ñetteelu fan ba ñu waxtu ndogu wa lañ yaakaaroon lañ amoon pour ndogoo ko beneen waaye jaar fa ko xam ne nii ab prisonnier la woon bu doo génn ci kaso ba amul dara ñu jox ko ko daal des ak yàlla yàlla kañ leen yàlla tudd leen ci alxuraan kañ seen jikko jooju ak seen taxawaay boobu te nag lañ doon def yàlla kese kese kese moo ko def moo taxoon ñu def loola. nu nut'imukum li wajhillah yàlla dong jëmmi yàlla dong lañ la ñuy sàkku ci liñ leen di leel nii bëgguñ ku ñu sant bëgguñ ku ñu wax jërëjëf bëgguñ dara ndax kat ñun dañoo dañoo ragal bis bu ñàng booba bis bu tiitlu booba bis bu lu booba bis booba rek lañuy lañuy lañuy lañuy la ñuy daw waaye nag yàlla ca saasa ci mbaaxam gi fa waqaahum allahu charra dalika al ca saasa mu tontu leen ne leen yéen de mucc ngeen yàlla fekkal na leen ayu bis boobe waaye joxaat leen yeneen i xéewal yeneen mais wa laqaahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa xarira ak yeneen xéewal yu baree bare yoo xam ne nii kenn mënu koo tudd ci làmmiñ <coughs> yoo xam ne yàlla moo leen ko fayee ñooñu te liñ lañ defoon mooy wor ba ngoon amuñ lu dul li ñuy ndogoo ku fa soxla ku ko yittewoo ku ko aajowoo jaar fa ñu jox ko ko daal jàpp des jàpp jàpp euh, des ak yàlla jàpp ci yàlla yàlla fay leen lool kon daal ñu ngi soññ mbokki jullit ñi ñëpp ñi gën a bàyyi xel wàllu googu dimbale seeni mbokki jullit yi dimbale seeni dëkkandoo daara yi nit ñaa ngi fi bu jaaduwul woon waratul woon nit ñi nekk ci mbedd yi di yelwaan wala di di wut lu ñu ndogoo déedéet nañ leen fekk fañ nekk ci kër ya xam nañ leen xam nañ ñu ko soxla nañ dem fekk leen fa jox leen ko ndax koor bari na yoo xam ne nii moom problème yooyu lay régler te bokk na ci mooy problème bii nii di gën a dëggal bennoo ak jàppalante boo xam ne ni julli ñi war nañ ko def ba yëg na ñoom kat benn famille lañ duñ ñaaru duñ ñett waaye benn famille lañ ñoo bokk laa ilaha illallah kon lu keneen ki di jàmbat ak di ko yëg ci métit moom la keneen ki war a yëg kon daal loolu la ñu waxoon ne tey rek nañu ñëw ñaaxa ci waxtaan ci ak yéen ñu ngi daaneel kàddu gi fi ba benn yoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abone te activé cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service du Saint